daal di ciy ak ponk yi ñu daal di jukki bokk na ci wàllu statut spécial bu mairie bu ndakaaru euh, xalaatuñ jiitu réew mi boobu ñu daal di jàppe wàllu nag dictature ndax ndakaaru dañoo war a tànn ka leen di jiite euh, deux cent milliards yi nga xam ne liggéeykatu pétrole ak gaz yi ñu ngi koy sàkku ne ñu daal euh, ci suuf lañu ñu daal nag jëm bu leen ko nguur gi fayul démb def nañ ci ab génn bi ci des mooy viol yi ñuy nemmeeku ci wàllu xale yi naka la ñuy daal di def ba aar leen wala daal di ci mucc mooy laaj bu mujj bi ñu jël ko jiitu ci ligne bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw waaleykum salaam wa Adama man la Chérif. waaw ñu ngi lay nuyu Chérif. maa lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allahu azza wa jal mu defal jàmm senegal def ko ci adduna bi yëpp. Mhm. mais ma ub benn parenthèse rek dama wax bëgg wax ni démb bi may wax waxuma ab sama maam Abdoulaye Wade bi may wax naafeeq waxuma sa maam Abdoulaye Wade ñi déggul nag te ñu xam ni kii du ma wax mukk di jëmale ci kilifa naafeeq beneen bi ma bëgg a wax moo nekk Sénégal gis nga ñun li ñu tardeel mooy politique xam nga ñun bi ñu nekkee xale dañ daan dégg suñu maam Léopold Sédar Senghor mu daan wax ni en l'an deux mille Dakar sera comme mais tey xoolal Dakar ni mu mel. lan moo ko waral mais politique moo ko waral. politique rek ngeen jël Dakar jox ko opposition bi jël état bi jox ko keneen loolu moo ko waral du leneen mais xoolal réew mu mel ni Singapour. Singapour ñaari parti moo ko am même deuxième parti bi formalité la bu ñu demee vote dañuy ñëw ñu compter ñëpp dem seen yoon mairie bi ñu jël ko dénk ko ku leen neex ñu dénk ko ko xoolal Singapour moo dàq Amérique tey en trente ans. mais nañu gëm ni Sénégal il faut ñu indi benn révolution bu ñu jël li nekk Paris ñu ne dañ koy indi Sénégal wala li nekk eh, Amérique ñu ne dañ koy indi Sénégal du ñu dem président bi li mu wax wax naa ko ci ñetti weer ci ginnaaw ne naa leen nañu jël mairie bi ñu jox ko képp ku fi toog Macky bu fa dee daf fay jóge opposition bi mënoon mën na ñëw ëllëg mu gagné bu gagné ñu jox ko mairie bi mu géré ko parce que ki mu koy dénk du fa nekk di xeex ak moom pour jël pouvoir bi romb Sénégal te c'est le poumon poumon économique du Sénégal Dakar Dakar bu développé rek yeneen julli yëpp da ngay gis ñu commencé développé yeneen région yëpp parce que c'est communicatif yaa ngi dégg c'est pathétique donc voilà quoi nañu jël nañu bàyyi président bi mu doxal euh, loolu parce que day dem du si demee rek mooy loolu mooy jàngatam Chérif ñu jël keneen ci ligne bi Socé 88 628 ah, ah, asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw waaw mbéykat mi ngi ziar leen sollicité de li ma inquiété mooy sama démocratique Sénégal daal sama démocratie ñoo koy delloo ginnaaw rek. Hmm. man nag faru ma benn parti politique démocratie la faral. Hmm. bu falu jalgati mbaa nga delloo ginnaaw démocratie contre naa la. te PS la koy commencé keroog bu Abdoulaye Wade remporté 19 mars. Hmm. Abdou Diouf am na kàngami PS yu taxawoon fii bëgg empêché loolu. on a coupé moo tax moo seen seen pexe jiwul. Abdoulaye Wade ñëw indi fi ay vingt pour cent pour jàll bu faloo da ngay dem démocratie di proposer ay maire bu ñu tànnal nit ñi alors que les gens sont majeurs et vaccinés daan vote yàgg vote des centaines d'années avant ñuy juddu ñoom ñu ko proposé hmm. bëgg ñu delloo ginnaaw ba Sénégal sax sur le classement de intelligence vous avez vous l'avez vu Sénégal dafa dellu ginnaaw nous sommes neuvième démocratie en Afrique maintenant loolu yëpp ay propositions yu mel ni moo koy indi arrière démocratie ay propositions déconsolidantes mais man daal vraiment opportunité bu yàq na Sénégal parce que nit bu fekkee da nga dugg en politique pour loo lekk rek ak loo am sa doxalin du mas a rafet dañu nekk nekk garmi mel ni mel ni Mamadou Dia mel ni Cheikh Anta Diop mais vraiment li ñu nekkee dafa ñaaw dafa ñaaw et dina dem ba nit ñi génn ko politique les gens ne vont plus voter ou bien les gens vont se battre pour des choses yoo xam ne xaalis ak ak ak extrapontaire la il faut ñu xool xool suñu su suñu principe intellectuel yi dañ taxaw wax te bañ a topp seen seet ñu ñu leen jënd ah les intellectuels ont été achetés pour pouvoir régime là ñoom ñoom ñu dem rangé wu di di xalamal régime bi loolu c'est indigne d'un intellectuel il faut ñu wax ko jërëjëf. Ah, ah, loolu di gis-gisam sëñ boobu woote donte joxewul turam ah, ponk yi mu ngoog deux cent milliards yu waa société pétrole ak gaz di laaj allo salaamaaleykum. waaleykum waaw sëñ bi. waaw. waaw ñu lay di nuyu. ça va. ça va allo allo waaw waaw ñun de dañu bëggoon participer euh, kii wax sa xalaat waaw yow déglu yaa ngi en direct waaw soo see dafa mel ni kooku xëy na dañoo déggantuwul wala euh, dafa comprendre wul waaye bu fekkee mu ngi dégg ñu ngi ko doon dégg bu baax mënoon na rek euh, joxe xalaatam allo salaamaaleykum waaw ñu ñu ngi lay delloo ziar waay waa jërëjëf euh, di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal bépp jullit. Chérif euh, vraiment maa ngi rafetu xalaatam wax na dëgg man gisuñu ne à la Médina grandi à la Médina mais je suis fier d'être banlieusard li mu wax ci Dakar dëgg la Oustaz man naa la juddoo mais Médina ba bu ñu meloon depuis temps Senghor ndax 1960 ba léegi noonu la mel canalisation yi gis nga bu tawee nii dañuy xuus canalisation yaa ngi nii bu tawee kenn mënu gën a pocc yi foofu Euh, le le maire là de ci euh, comment dirais mi ngi bëgg a def mais euh, forage yooyu ñu def ci buntu kër yi c'est très rafet na trop mais canalisation yi moo njëkk canalisation moo njëkk sax mbir na da nga doon benn kër bu nga xam ni y avait presque quinze dix personnes a presque trente familles macha ñu demee taw toilette wala sangu bu kii kenn kenn du ko mën a dox kenn du mën génn te te Médina dafa nekk ci xolum Dakar hmm. suñu wax Dakar Dakar Médina moo tax mais je crois que foofu ñu ngi naan ñu ne mënul développé wu maa ngi rafetlu Chérif lu mu wax Dakar bu développé rek yeneen régions yi kon je crois que politiciens yi bu nu nax bu nu nax bu ñu nekk jël politique bi tey ñu ngi ne place de l'indépendance depuis 1960 ma suis né avant l'indépendance mais ñu mel ne ba léegi 1960 ñu ko tubaab yi bàyyoon na la mel ba léegi ah ñu ngi que loolu du taaru Sénégal non je crois que gis nga dañu dañu changer comportement ki comme président Macky Sall yàlla moo ko fi def na nga ko jàppale mu liggéey

génn ko tey ndox bi di dem géej je crois que c'est la meilleure solution ndax foofu dafa am napp ndox bi bu ñëwee foofu nit ñi foofu dañu sonn. ok soo see matal naa ñu xaar keneen jël ko biir réew mi wala bitim réew. allo salaamaaleykum waaw. waaleykum salaam Oustaz Adama ñu ngi waaw. waaw man de affaire bi pour affaire u mairie bi rek yooyu noonu dama ci am ñaari xalaat. waaw mooy. waaw waaw benn bi euh, mooy moom jàpp naa ne mën naa nekk recul démocratique dëggantaan. Mhm. waaw mais aussi d'une part li Chérif wax aussi dëgg la. Hmm. parce que apparemment ki fi nekkoon maire Khalifa Sall. Hmm. amoon na ay projet yoo xam ne bëggoon na ko tëral mais hmm. li mu nekkoon ci parti opposition bi. loolu moo tax gars yi mayuñ ko pour mu def ko. waaw léegi ñoom ñu allo. oui waaw lu tax ñoom ñaar mënuñu trouver consensus si li nga xam ne mooy intérêt Dakar ñu def ko. waaw xam nga maanaam comme mbiri politique la rek loolu mooy problème bi mais wax dëgg yàlla kenn ku ci ne ak foo a féete rek da ngaa war a xool. intérêt que muy que muy opposant que muy ku mën a nekk ci àdduna rek li la war li la war a li la war a intéressé mooy intérêt réew mi hmm. mais li ma bëggoon wax beneen xalaat bi mooy gannaaw recul démocratique bi mën na nekk avancé bu rëy hmm. ak avantage bu rëy pour Dakar hmm. parce que parce que comme li ma lay wax nii su nekkoon ne xëy na un un maire boo xamante ne nii il est quand même de la mou de la mouvance présidentielle kon projet yëpp dina ko def et puis Dakar dina avancé léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar léegi nag kenn ku ne yaay tànn bu nekkee dangaa gis ne recul démocratique la bu la neexee mën nga cee bañ a ànd bu nekkee ne da gis ne mën na tax Dakar avancé mais pourquoi pas loolu laa amoon pour wax euh, oustaz jërëjëf ok waaw mu nga ko loolu mooy gis-gisam ñu xaar keneen euh, soose allo waaw Adama waaw ñu ngi fi waaw Ndiaye gis nga ànd ànd a benn taxi pour di nommer maire Dakar par pour par le président président de la République kooku. man tegu ma jàpp ma itam li ci yoon. gis nga gis nga France bële. Mhm. France. waaw chef de l'État bu fa nekk daanaka Paris Paris capitale bi ci boppam opposition bi moo ko moo koy dirigé. dëgg la dëgg sax Chirac nekk na fi maire mhm. maire Paris ñaataat. Mhm. ba actuellement ki fa nekk ñu naa maire Paris ba fa nekk ci nekkul rek quoi. waaw mais Chirac bi kenn ku nekk sa gëdd nañ la ko jox. nañ nañu bàyyi nit ki am opportunité su ko defee su ëllëgee hmm. kooku mën naa nekk chef de l'État mais soo ko may daal lu mu la lu mu la contré mu am ambition folu hmm. liñ fi nekkoon boobaa bi léegi ñuy dund ba ci jamono te ku fi indi leneen wax dëgg yàlla yaa ngi bëgg a indi hmm. ko teg suuf te te gëm yàlla parce que jël ko jox ko jox ko ku ko neexee mu su ëllëgee bu la woon Ndakaaru contré est-ce que ah affaire bi dafa jël kat ànd ak Macky Sall ànd ak Madiambal Massamba Diagne man damaa ne man damay rek maa koy liggéey bu ma ànd ak de mhm. loolu bu fekkee Macky Sall moo ko naan dégguma ko ci lamee mais bu fekkee moo ko wax na ko teg mhm. pare nga ne wax naa la ku ko répété pare nga dama ba fii ñu ni opposition moo moo ko dirigé te te te te su su su SNTC lay présenté su gagné gagné su ñàkk a ñàkk mais capital bi tool Ndakaaru mhm. jox ko a d'accord loolu xel loolu ko xalaat de mhm. mu def am ah dama ne gis nga ñun suñu problème mooy Sébikotane fii suñu mbedd bi nekk yi fii diggante fii fii ak ñaari bii waaw nañu nañu nguur gi dimbali ñu yàlla defar ñu ko sonn nañ de ñaa ngi dee si tax sa xel de dara ka ñu seen jàmm mhm. boo xam ne ci bëgg a dee diggante bi ça fait même pas cinq cent mètres mhm. mais dama ne fi nekk nii kenn amul benn buntu kër boo xam borom kër mën na fa toog di waxtaan ak moom dogoon amul ñëpp ngi ci biir néegi su may waxee yow ñu naan ci doom biir bi la téléphoné yi lii kenn musu ko gis waxuma waxuma ne maire bi dama moom ko wax seet waxuma loolu dama ne mhm. état bi laay interpellé moom ok matal na kon mu ngoog euh, sàkku tiifam ci seen wàllu dëkkuwaay ci euh, allo waaw waaw allo salaamaaleykum waaw waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ma man lay laaj Sall. ñu ngi lay nuyuwaat sëñ bi baax. man daal vraiment argument yi nga dégg amul ci dara loo xam ne nii lu ma déglu la parce que ay bon si yow war a yor mairie bi dafa war a nekk ci déggoo état bi quelque chose comme ça peut être xëy na. Hmm. li ñu war a def ñoo ñoom ñaar effectivement am na ku la ko wax sànq yi. bu fekkee kenn ku ci ne. la nga war a def confusion du am. Hmm. damay jox benn exemple rek. ci hmm. 2009. AFP moo gagné maire bi ma génn jiite ko. à 2009. Hmm. Euh, euh, libéraux libéraux yi ñooy état bi. mais ñoom dañ amoon ay relation yu baax a baax a baax daa joxe exemple mu ne. kaw hmm. Kaolack dafa manqué woon ay télé ba jéggi dayoo te xam nga commune boo xam ne ñu ay budget deux milliards am. Hmm. danañu a ay télé. donc ci sollicité woon ñu chargé des des des roues muy Karim Wade ñu waxtaan ak moom ñu cité ko mu may leen dix jours dix dix kilomètres de goudron ne leen seet leen su ngeen bëgg ñu mooy tëli bi jee sànqlaate Kaolack tey fii ma lay wax mooy tëli bi jógee Saar jaar Ndoro jar romb Ocass noonu dem Gaawaan dem Midina nga xam ne yow mun ngay jóg mun nga jógee Dakar ñëw Midina te du ko accès sax par Kaolack mu nekk benn route boo xam ne nii mooy route bi nga xam ne nii moo ëpp importance te loolu bu fekkoon ne commune bi moo ko commune moo ko waroon a def mais relance yi mu amoon ak état bi moo tax mais yow nekk fi naan alors mais loolu du du ko am maanaam décentralisation hmm. ak soixante-douze loolu lépp lu ñu daa def préfet yi ak sous-préfet yi ñoo ko doon def ñu jël ci pouvoir bi jël ci localité yi ne leen yéen yéen a gën a jege askan wi yéen di ci teg benn code de collectivité locale bu leer nga xam ne ni euh, contrôle légalité bi bi la wala lépp lu mu def lu dëppawul ak yoon da koy utiliser loolu wax dëgg yàlla bu kenn ku ne defee li nga war a def rek lii ok euh, kon mu ngoog ñu daal ko fi yemale waxtu woo ñi daal di nag dàpp sud éducation lañ ciy toftal buñ ca noppee 18 heures dafay daal di jot Jande Khady Diop ñëw ci xibaar yi ci yaatal ci kàllaamay tubaab ñu ngi jaajëfal bu baax Alioune Badara Socé moo fare woon ci sottandiku kaay bi